dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyanto yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy jànge fane kuréel gi ëmb entreprise du Sénégal di MEDES ci njiitul président Mbagnick Diop demb ci Radisson amal nañu ñetteelu édition salon des startup 4.0 ci teewaayu ministère bi ñu dénk wàllum économie numérique ak télécommunication seen secrétaire général di Moussa Yoro Diallo moo fa teewaloon ministre bi yéenekaay gi di Rewmi Quotidien daat nay xëy waax ne salon des startup 4.0 li nga xamante ni mooy njariñ li daat nay bëri yi nga xam ne ñooy waa medees bokk nañ ci maanaam gunge nag ndaw yi nga xamante ni ñooy ay jeunes acteurs jëm ci wàllum écosystème numérique yéen a kaay gi nee na li nga xam ne mooy salon des startups sax dañuy soppi li nga xam ne mooy tur wi tuddee ko Afrique Tech objectif bi bokk na ci nag at mu jot ñu daal di dalal lu toll si ñetti junni ci ay startup lu toll si junni ci ay visiteurs ak lu toll si juróomi téeméer ci ay taskatu xabaar ay junni junni conférenciers internationaux MEDES ak salon des startups ñoom jamono ji dañoo engagé wu ci wetu njiitu mi président Macky Sall ngir nag jàppale ko ngir mu mën a réussir ci lu jëm ci wàllum numérique ak création d'entreprise ak lu jëm ci start jigéen ñi ak góor ñi yéen a gi di réew mi quotidien ak las Vox Populi observateur enquête les échos source a ñu xëy fekk fa Aminata Touré mi nga xam ne ay jamono mu jiite woon conseil économique social environnemental mu ngar dajjoo mbooleem yéen a kaay ñu xëyandoo diggante Aminata Touré ak njiitu réew mi di Macky Sall c'est fini julli tubaab moom Mimi Touré daan wax ne ñetteelu mandat kenn xalaatu ko ci réewum Sénégal Sall moom Mimi Touré nee na Macky Sall ci boppam bi moo nekk ñaar ak mujjantalu mandaama ndax moom Macky wax na ko ay yoon yoon ci atum 2019 ne Sénégalais yi bu ñu ma falee ci atum 2019 mooy nekk sama ñaareelu mandat ak sama mujjantalu mandat te loolee leer na mbirum ñetteelu mandat ma ngi sunu ginnaaw wax ko sax yàqi wax la kàddu yu Aminata Touré la moom Mimi Touré ci yéen a kaay gii de la Tribune nee na fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2018 Macky Sall bu ne lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat gi bëri na ñoo xamante ni ci dëndu Afrique ànduñu si ndax ci Afrique sax boo ko xayma téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ak juróoma dañoo d'accord ci ñu limiter li nga xam ne mooy mandat yi ndax foofee la démocratie toll te na képp koo xamante ni yaa ngi ci am réew di saax-saaxe wala ngay ñàkk respecter say constitution loolee ci boppam mën naa indi ay jafe-jafe Aminata Touré nee na nag li nga xam ne moom la ñuy xaar ci président Macky Sall mu respecter li nga xam ne mooy constitution bi yéen gi di nee na lu jëm ci wàllu wér gu gi ci réewum Sénégal sooxe na ba fu natt na ko ndax ci biir réewum Sénégal su passé Dakar ak Thiès yeneen région yi amuñu ay hôpitaux yu baax amuñu ay spécialiste amuñu plateau médical bu baax région bu Kolda ak li muy rëy fukk ak benn ci ay médecin kese moo fa nekk hôpital bu mbuur amul ambulance médicalisée yéen a kaay gii de las nee na hôpital bu Ziguinchor moom moo gën a malade ci hôpitaux yi ndax nee na sax hôpital bu Ziguinchor moom moo gën a feebar maladi yi yéen a kaay gii de Vox nee na conseil municipaux yi ànduñu benn yoon ngir ñu jëlee fi ville bu Ndakaaru yéenekaay gi nee na Khalifa Sall jamono ji am na lu muy waajal ginnaaw bi mu gisee ak Ousmane Sonko gisee ak docteur Cheikh Tidiane Dieye gisante na ak Abdoul Mbaye ak ñoom Thierno Alassane Sall yéenekaay gi di daan na xëy ci Eiffage wax ci taxe foncier yi nee na autoroute bi fi muy jaar fépp Eiffage dafa war a fay ay taxe waaye nag li nga xam ne moom la ko état bu nangul ni ay taxe mooy at mu jot 1000 francs ngay fay maanaam juróom-ñaari at yëpp 7000 la Eiffage fay ni ay taxe te loolee sax gëmuñ ne 7000 francs yooyee versé nañu xam ne jox nañ ko EFAS ci lu jëm ci wàllum fiscal ak wàllum douanière yéenekaay gi nee na li nga xam ne nag moo am ba des daal EFAS ci 2019 bi rek jël na lu toll ci 143 milliards waaye nag EFAS fan la teg di fay taxe 1000 francs at mu jot ci taxe foncier bi loolee moo jaaxal gars yi yéenekaay gi de la Tribune nee na front social bi jamono ji mere nañ lool Macky Sall ndax nappkat yi mer nañu jàngalekat yi mer nañu étudiants yi mer nañu njaboot gi mer nañu yéenekaay gi di Vox Populi nee na liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci collectivité locale ñoom tamit jamono ji aw nañu si yoonu xeex ndax benn yoon ville yu mag yi ñu koy jëlee ci réew mi Dakar Times en tout cas Macky Sall war naa xoolaat boppam war naa taxawaayam ndax nag bëri na ci réew mi ñoo xam ne mer nañu ba futu ñi nga xam ne ñoo yëngatu lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram gi wàllum transport bi wàllum njàng meeg njàngale mi ndaw ñi artistes yi ambulance yi mareyeurs yi entreprise yi yii yëpp dañoo sooxe ñu ci bari am si ay jafe-jafe yéen kaay gi di enquête nee na lu jëm ci accord de pêche yi nga xamante ni réewum Sénégal signé na ko ak waa Union européenne Ousmane Sonko gën naa dugal gouvernement bu Sénégal jël na lu toll si juróom benn ci ay laaj jébbal ko assemblée nationale en tant laaj na leen lu jëm ci accord de pêche yi nga xam ne état bu Sénégal signé ko ak léexoo rek ndëngte yi nga xamante ni moo ci am wax na lu jëm ci wàllum ni ñuy exploité phosphate bi ca diwaanu Matam wax na ci lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz ak droit pétrolier yi yéen a gi di Rewmi Quotidien nee na am na benn jàngalekat boo xam ne sa Kaolack la ko rey Sud Quotidien na xale bi nga xam ne moo faatu ci crèche bii di Sigogne stade yéen a kaay nee na Premier League ca Angleterre ñaar ñi nga xam ne ñoo jël première tey ci ñooy laale diggante Liverpool ak Tottenham yéen a kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Ndiouga Dieng superviseur technique écurie Rock Énergie daan nay wax ne Ama Baldé mënu do terrain nelaw Modou Lo